waaw kontaan d'abord ak sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu mayee tal ak fekkee macha allah mu liggéey nag ah comme d'habitude rek moom heure buy génnee album événement la te heure buy génnee album day neex parce que da koy liggéey ah, def ci def ci gëdd def ci àq ba nga xam ne bu génnee ñun ñëpp dinañ kontaan te xam nga ons titres du ay caaxaan voilà du ay caaxaan. album bi nag pour dire vrai jëlaguma sama temps déglu ko complètement mais moom euh, comme li mu joto a wax rek li ci nekk ay thème la ah, bu ci nekk rek kaa la te bu ci nekk da ngay gis ni Viviane màgg na ak musique am mais màgg na ak ay fansam donc euh, euh, ay ay ay thème la daal donc ku nekk mën nga ci jàng ku nekk mën nga ci jëriñu lool moo li gën a neex ci album bi titre yi nga xamante ne si ni bu ci nekk moom jot na ko faram fàcce te li lim ci wax lépp mu mu intéressé ñu mu nekk li nga xam ne moom la ñuy dund ba album bi moom xam naa ni macha allah dina jaar fi moromam yi jaar en réussite totale egg foo xamante ne dina wees suñu njort parce que nag lu mu liggéey la te musique bi paroles yi thème bi lépp macha allah te xam ngeen ne bu kili bi ñëwee rek ngeen xam ne Viviane du morom du morom ci benn xale ci ay clip. waaw comme na woon rek xam nga Viviane moom euh, Sénégal monde entier international ñëpp dañ koy xaar parce que moom mooy Viviane c'est un star quoi waaw ah, album bi ñëpp xaaroon nañ ko album bi ñëw na li ñuy dégg nii rek muy résonné nii rek macha allah. xanaa Sénégal ñaanal ko mu yàgg fi ah parce que sénégalais yi ñoo ko delloo ñoo ko a delloo njukkal mais Viviane matal na matal na bu yàgg na gars yi gore nag delloo ko njukkal delloo ko lu moom quoi fii ci Sénégal. Viviane moom moo ko wax moom moo wax beneen level Viviane moo fi indi level yëpp fii level boo fi dégg Viviane moo ko fi indi dëgg moo neex yàlla quoi man damay ñaan rek. yàlla nañu yàlla gën a suturaal quoi mais sénégalais nañ gore ñu delloo Viviane moom dafa neex ci xol xam nga nit koo xamante ne nii da lay te gis nañ ne Sénégal bi da ko indiwaat Afrique bi da ko indiwaat way ci Sénégal bak ci Sénégal kon Sénégal dañ ko war a delloo njukkal yàlla mooy def loolu loo gis am na ku jiitu loo gis ci àdduna rek am na ku jiitu yàlla moom la teg nañ ko ko nangul rek ndax suñu xol yi neex. waaw maa ngi leen nuyu waa DK TV people. waaw album bi ni ma ko gisee xam nga ni duñu ni guleet la ci Viviane. gis nañ Viviane bu gën a màgg koo xam ne daal maturité carré à 100 pour cent gis nañ ko ci moom Viviane amatul lu muy prouver waa Sénégal bégal nañu ci bépp boor dañ daan walliance ñoom Beyoncé Rihanna moom moo ñu ko xañ walliance ñëw di ñu defal li ñu luñ daan walliance mu ñu koy defal ñuy bégg donc Viviane ñun ci kaw ci kanam rek la ñuy wax ci Viviane way